xam nekk moo di waxtaan wi mu gëna fassanti ko nak bokk na si wàllu actualité li nga xam moy national bi jëm ci li nga xam nekk moo di moom itam mu daal di fa nga xam ne itam mooy F24 nak ak FRAPP den dal dik sen ay grande orientation nga xamni ne itam am nañ ko jëm ci walu bu nu mel sunu gëna a nak nag si li nga xam modi sen di seen rendez-vous d'information de la mi-journée bu tay bi waaye neen dem fa nga xam ne itam mooy daan si si kër fekk fa ki nga xam nekk moo Jibril mu daal di defal li nga xam modi le point actuel jëm situation bi à cité kër góor gi chers spectateurs jëm ci ki nga xam nekk moo Sénégal li nga xam ni itam biral na ko que ni ni daal dem jëli Ousmane Sonko nag te woo li nga xam ne moo di patriote yi daal di nekk benn ko bloc prêt à aller cueillir ki nga xam ne moo di Sonko fa nga xam ni itam mesane si kër a euh, euh, euh, génn neen si waaye itam ak appel bi nga xam ne itam jot nañ ko si daal déposé

Euh, Lolo, ñun daanaka mën nañu wax ne euh, su ma jëlee euh, appelu F24 bi nga xam dañ dañuy solidaire suñu biir. Hmm. ngi détenu politique hmm. blocus nous def buntu Ousmane buntu président Ousmane Sonko. Hmm. détention la. donc tey booy wër détenu politique exemple détenu politique moi, lu ñu def buntu Ousmane Sonko loolu ko fi mooy euh, Congo lañ ko doon gis ak euh, euh, Sassou Nguesso wala ñu ko doon gis Cameroun ak Paul Biya ñuy séquestrer wala mettre en résidence surveillée seen principal opposant hmm. mais loolu lu bees la fii Sénégal moo tax tey booy wut exemple détenu politique ndaxte président Macky Sall dafa doon wax ne moom détenu politique amul ku ñu jàpp am na lu tax ñu jàpp la. mais est-ce que ku ñu jàpp amul lu tax ñu jàpp la. waaye tey tey tey. amul ñoom sax nangu nañ ko. ba euh, euh, ministre de la justice Ismaïla Madior Fall nee na amul fenn fu ñu tënkoo ci ci ci ci ci loi boo xam ne euh, ci lañuy tere Ousmane Sonko mu génn këram amul benn ordonnance juge bu ne na Ous ne Sonko warul génn këram kon tey ministère de l'intérieur moo ne ak dooleewu gouvernement. ñoo ne hmm. Ousmane Sonko du génn këram loolu loolu loolu nag mooy. le niveau le plus euh, absolu d'un détenu politique Tay Ousmane Sonko c'est le détenu politique par excellence ndaxte amul ben, xam nga détenu politique avons détenu politique Nous avons exprimer opinion Nous ne euh, opinion bi neexul gouvernement nous. ñu mm. nuñ koy euh, article mm ba vous euh, avez am en instruction. Hmm. mais quand le euh, président Ousmane Sonko amul lenn lu juge le gouvernement a décidé qui kii du génn hmm. donc jàpp na ni séquestré de façon illégale. oui de façon illégale et complètement arbitraire euh, ça ne souffre d'aucune contestation Le ministre de la justice a une amul base juridique. Euh, bu ko invité mais nous nous bu inviter ko invité 7TV. moom moo ne amul benn base juridique bañ na ko ba sax dafa ne su fekkee ne kii justice mën nañ attaqué sax le fait que moom si boppam nee na mën nañ attaqué le fait que ñu euh, amul benn base juridique bu tax ñu kii euh, Ousmane Sonko. Hmm. ministre de l'intérieur ministre de l' intérieur revenir ne technique de maintien de l'ordre ordre la maanaam ci gàttal gouvernement Sénégal moo décidé que pour quelconque raison Ousmane euh, président Ousmane Sonko du Guen këram. mais 18 boobu non, est-ce que jàppoon ni da nga kaa jël mu daal di aussi ak caravane bi nam doon na ko daal di amal ba kenn daal si ñàkk bakkanam exactement fa nga xam ne itam mu daanu ko Kolda mu daal di jàpp ne loolu dina am d'autres li nga xam ne conséquences, di conséquence di jël les devants. xam nga xam nga xam nga loolu euh, tey ay euh, argument un peu alambiqué la. dafa mel ni day mel procès bi rek dañuy gis ay argument wu naan caravane bi euh, Sénégal musu fee am ay caravane wala manifestation politique boo xam ne aw na ci yoon hmm. te euh, mu am ay ay euh, ay dérapage yenn yi c'est vraiment vraiment vraiment vraiment rare mu am dérapage xam nga man dama jël exemple rek man ku supporter football la samedi jaraaf ak Pikine football nañ balaa jouru jaraaf yi di dugg ci stade Alassane Djigo bi. Hmm. ay supporteru Pikine di sànni ay ay ay kii ci bisu jaraaf bi xam nga loolu. su nekkoon ay xeer rek la. Ah, ah. garaawul mais fii dañoo gis ay arme à feu yoo xam ne. donc utiliser maanaam dama la bëgg expliquer que. tey fii Sénégal euh, rassemblement politique. ok dans quatre-vingt-dix-neuf pour cent des cas. Hmm. bu jaaree ci yoon euh, autoriser ko ñu bay nit ñi def rassemblement ci hmm. dans 99 des cas man en tout cas man gis man gis rassemblement bu ñu autorisé bu normal débordement rassemblement débordement. c'est euh, non autorisé et spontané mais lu autorisé encadré ko man de mais comme. am na lu ma jiitu peut Sénégal moo tax ma ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent des cas moo tax ma jël exemple ne tey football dans quatre-vingt-dix pour cent des ca day am ay violence hmm. est-ce que dafa tax ñu ne léegi bu kenn duggati ci terrain football yi. Hmm. léegi ñu ne parce que euh, président Ousmane Sonko ñaata caravane la mës a def ci àdduna bu euh, boobu ba léegi euh, mu ngi ci politique bi depuis 2016 ñaata meeting la mës a def ñaata caravane la mës a def. deux 2016 ba 2022. mais tolluwaay wi 2016 ak 2022 est-ce que benn la. su lay nit ki def caravane yu muy def def na ko fi defaat ko fi defaat ko fi mu am benn boo xam ne ba léegi sax xamuñu affaire bi fu mu féetee. ndax ci hmm. nervi yi la jógee walla ci groupe bi. Hmm. maanaam ndax. ndax amul ñeen sax ñu ñëw saccagé. ah dañuy naan ku nekk ak sa la. dëkk bi ku nekk da ngaa yow nervi. ah man de aw ma nervi ñun man xaw ma nervi aw ma aw ma nervi. donc nervi eh, fan nga koy féetale tamit man loolu man loolu man man argument boobu noonu man mun ma koo jël ndaxte man man aw ma nervi mm. organisation ma bokk amul nervi xamul nervi donc ku ma ne ku nekk ak say nervi loolu mënuma ma ko dégg. te man li ma mën a dégg mooy euh, nervi man su ma gisee nervi mm. mu taxaw ci wetu force de l'ordre ñoom ñaar ñu taxaw même ligne mooy borom mooy bu xonk bi. Mm. kooku moom tey yomb naa féetale maanaam bu ko ki taxaw ci wetam bu ko xàmmeewul woon en tant que policier euh, agent de euh, force de l'ordre nit taxaw sa wet yore arme yow xamoo ko xàmmeewoo ko. Mm. doo ko bàyyi mu avancé. donc tey am na yenn nervi yoo xam ne moom. mun na donc lan ngay insinuer foofu noonu d'ores et déjà lan ngay insinuer foofu noonu xam nañ fi ñu leen féetale. mais lan ngay insinuer foofu noonu après nag ku nekk seen nervi man. comme ni ma la waxee organisation bi ma bokk. amul ne mais lan ngay insinuer foofu noonu cest der bi gis na waa ji sol yëre bu xonk yor armam di diriger wu vers moom te jëmu ko arrêté donc lan nga bëgg a insinuer. foofu noonu non moom ak euh, image bu ñu gis bi euh, bi ñuy. Ah, parce que dafa dem rejoindre xel yi xam ne mooy pick-up blanc bi. voilà dafa ñëw taxaw ci wetam. ok voilà moo tax ma ne la tey ah aw leen lu ma insinuer dama ne. Hmm. man ci sama xalaat. ak si ni ma xamee les forces de défense et de sécurité du Sénégal ku bokk si den la teel a démantelé. maanaam tey je je man je man dama respecter gendarme et policiers yi. Hmm. te gëw ma ne naïf nañ à un point que. Hmm. nit dina ñëw téye arme ñëw jege si leen taxaw seen wet ñu taxaw ne la euh, euh, ñu taxaw di la seetaan. ok asamala ku amul arme la ñuy gis ay vidéo ñu leen di attaqué di leen dóor. Euh, gis nañ fi keroog bu ñuy dem cité kër góor gi euh, Alioune Sané yorul arme yorul dara dafa ñëw di bëgg jëm kii ñu yëkkati ko diri ko. Hmm. asamala ñoom ku yorul arme dañ koy yëkkati diri ko. Hmm. ku yor arm taxaw seen wet buñ ko deful dara. ah doy na ah, waar euh, justement dañ daal di ñëw si nu mu gën a yaatu alors dañuy dem fa nga xam ni itam mooy Saloum si sa kër góor gi retrouvé fa ki na xam ne que moo di Jibril mi ngi fa sur place alors ñu lay.